Situé au cœur du centre-ville, 21 rue Jules Ferry, angle Mohamed V, immeuble Tamaro, à côté de la Pix. Le magasin The Office vous accueille dans un espace moderne et convivial pour le bonheur de tout un chacun. Vous y trouverez des écrans révolutionnaires à la pointe de la technologie, ainsi qu'un large choix d'appareils électroménagers pour aménager votre intérieur suñu congélateur verticaux bar ou le coffre suñu cuisinière agli ak di micro-ondes dernier cri dinen bagel, képp ku bëgg am wañ bu mucc ayib The Office bari na itam machine yi ngeen di soxla bés bu ne ngir yombalal seen dundu. muy machine à laver yi gën ci marché bi wala machine à café yu ànd ak jamono lépp ñi leen di xaar ci suñu magasin. waaye nag jeexagul de The Office vous offre aussi tout le matériel informatique dont vous avez besoin pour vos services et entreprises. Vous êtes chef d'entreprise, businessman ou entrepreneur on a tout ce qu'il vous faut. Ndawitam, itam ci lañu bokk The Office di fi am ay matériel bu méngoog seeni bëgg-bëgg téléphone yu mucc ayib PlayStation kok ak yeneen yu am solo dem Europe dal, xewi Lo leen bëgg rek mu ngi fi ci The Office teg ci njëg lu yomb nak. Laissez-vous conseiller par nos commerciaux. Rendez-vous au plateau Ville, 21 Jules Ferry, angle Mohamed V, immeuble Tamaro, à côté de la Pix. Et faites votre choix. Vous serez livré gratuitement, en toute sécurité, avec une SAV dynamique et à l'écoute. Numéro de téléphone 33 823 85 80 ou 78 445 58 00.